mu mel ni nag kom ni ko baaxoo di def ee ci ay ayu bis yu nekk muy sunu jotaayub yóbbalum ndaw ñi muy jotaayal fàttalikonte waaye di jotaayu xam-xam ñu nekkoon doon jàngale téere bii ñuy wax al jawharun nafis ñu tolloon doon jàngale waxtuy julli seeni moxtaar ak seeni daruur yi waxtu wu nekk ci waxtu julli yi am na ca waxtu yoo xam te ni moom lañu tànn muy waxtu yoo xam te ni ku ca julli julli nga ca waxtu wa am waxtu yoo xam te ni it boo amee ngànt nga julli ci ba tey yaa ngi julli ci waxtu wa waaye boo ko génnee nag li ngay def kon julleetoo ci waxtu wa da ngay fay kon ci loolu lañ nekkoon doon ko leeral ci suñ jotaay bii mujj muy jotaay bi yóbbulum ndaw ñi kon ñu fas yéene sof ci suñ jotaay ab tey di xamle ci waxtuy julli yooyee yiñ ci dese woon kon ñu ngi tolloon ci waxtu suba moo tax mu wax ne wajaxal na nga def muxtaaran muxtaaran li subxi ñeel suba minhu mi ngi tàmbalee ci xaruk fajar ga ilaa isfaarin ba ca leer ga axlaa gën naa kawe xadd jalaa gog leeral na lil wujuhi ñeel xar kanam ya mu ne kat waxtu suba kon muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu fajar ga xare nga xam ne léegi julli fajar jot na kon foofu la muxtaaram suba tàmbalee kon ma nga yam tamit bu ñu julee suba ba nga xamee ne asamaan si dem na ba tàmbalee leer nga xam ne nit kii sax boo ko gisee ci ak lëndëm nga xool xar kanamam di nga xam ne kii kat diw la boo xamee ne leer na leer gu mel noonu rek na nga xam ne kon muxtaaram suba foofu la yam daruri yi tàmbalee foofu nag moo tax mu ne wa minhu bokk na ci moom mabda u daruri yi tàmbalik yi ilaa tului xursi samsi bi ilaa jëm ci fenkul catu jantuk sunu borom mi nga xam te ni mooy aji maye xéwale mu nekkat daroor yi suba mi ngi tàmbalee ci bul leeree <coughs> heure boo xoolee mu leer ba mel noonu mu la waxoon léegi rek kon muxtaar ma jeex na fa muxtaar ma jeexee fa la daroor yi sosee daruur yi nag mi ngi sos foofu ne dem ba nga xamee ne jant bi tàmbali naa fenk ba nga xam ne jant bi tuuti cat la rek moo tàmbalee ñëw ba génn kon boobaa foofu la daruur yi yam mooy catul jant bi bu tàmbalee fenk su malxadaa topp fay fii jamii ci mboolem seen yan tamit dana askanoo li baax di zil awxaati lenn ci ginnaaw waxtu ya indal xakami xooy àtte ya mu ne tamit ki nga xam te ni moom day fay nga xam ne dafay fay moom kooku moom ci wàllum naafile lay wax ki nga xam te ni ci misaal moxtaar da ko raw moxtaar moom la waxoon ne la suba moxtaaram mi ngi tàmbalee foofu mu am ngànt ba julliwut ci moxtaar ma moxtaar ma jeex mu am ngànt ba julliwut ci daruuri ya ba ba daruuri jeex kon kooku julleetut ci waxtu waaye day fay waaw kon kooku day fay kon kooku moxtaar ma raw na ko daruuri ya raw na ko kon ñoom seen waxtu foofu la yem kon nag bu fekkee day julli moom day yéenee fay julli googee ndax moxtaar ma raw na ko daruuri ya raw na ko te loolu mooy waxtu julli ya kon day yéenee fay ci bépp julli nag boo mën di kon day yéenee fay ginnaaw waxtu yooyee waaye nag bu dee am na ngànt moo tax muy wax bu dee ngànt la day yéenee fay moo tax mu ne wan mi na nga mànq azima bi aji màgg ja bàkkaar lil mu waqiri ñeel aji yeexe julli xataa tafuutahu bam raw ko bilaa osin ci lu dul ngànt duri xameef na ko mooy nag na nga xam ne ki nga xam te dafa yéex a julli ba nga xamee ne waxtu julli ya raw na ko te amut benn ngànt lu topp bakkanam rek na nga xam ne kooku kat am na bàkkaar bu mag a mag a na bàkkaar bu nga xam ne moom waroon naa julli ci moxtaar ma yéexee julli ci moxtaar ma ba moxtaar ma jeex mu julli ci daruri ya am na bàkkaar waaye rawatina nag bu julli wut ci moxtaar ma julli wut ci daruri ya kon boobaa nag ba day rëy ba nga xamee ne kenn du ko natt kon yéexee julli lu jara moytu la nit ki war na fonk waxtu julli ya xam fam tàmbalee xam fam yam fexe tamit di julli ca waxtu yañ tànn muy moxtaar ma ku ko defut nag ci topp bakkanam ba tardé julli ga tardé moxtaar ma tardé daruriya kon kooku bàkkaar bu rëy lay mu ne wa kuriha sibeef na naflun naafile baxda subahin gidaaw suba li tuluuxi samsi ba ci fenku jant ba laa xadaa ul mansi déet fayuk aji fàtte ja wa baxda asrin ak ginnaaw tàkkusaan li salaatil maxribi ba ca julli timis ga wa baxda fajrin ak ginnaaw fajar inda kulli aribin fa kuy tànneef ya fa way way teggin ya mu ne kan ki nga xam nii day naafile mu sib nañ ku naafile ci ginnaaw jullik fajar sib nañ ko fa naafile sib nañ it ku naafile ci buñ jullee suba ba pare ba jant ba di fenk sib nañ ku naafile ci diggante boobee sib nañ tamit ku naafile ci diggante ba ñu jullee tàkkusaan ba pare ba julli timis jot kon yooyu sib nañ ku ca julli ba pare di ci naafile kon yow boo jullee tàkkusaan rek yow sa julli tàkkusaan bul ne man julli naa tàkkusaan waaye jàkka ji julleegut wala julli naa tàkkusaan waaye ñee julleegut naa naafile déedéet yow heure boo jullee tàkkusaan ba pare rek sib nañ sa diggante boobu nga naafile ji ba jant bi so mooy bu timis jot te ginnaaw tamit boo jullee suba yi ba pare sib nañ ko ko naafile ba nga xamee ne jant bi fenk na ak ginnaaw julli fajar tamit lu dul ki nga xam te nii kat dafa da amoon waaw ki nga xam te dafa amoon ay naafile yu muy def waaw da koy fay nga xam ne ay naafile la doon def waaye nag daf naafile yooyu dafa am ngànt ci guddi gi ba naafile wu ci loolu la ñëw ci kaw moo tax mu ne laakin zal wirri waaye nag boroomu wérd jawaazuhu dagan na yuraa gis na ko lahu ñeel ko isa xalaba nem notta ay nay ñaari bëtam alkara ngamin mu ne ki nga xam te nii kat moom dafa faroon di naafale ci guddi gi wala muy wérd ci guddi gi waaye nag mu am ngànt ba du dab ko ba mu nelaw te tayu ko biddanti ba ñu yewu fajar mu ne kooku diggante bi ñu jullee fajar mën na cee gaaw fay dogam boobee mu daan def mu dee naafale wala bu dee wérd mu gaaw fay ko njëkk ñu julli suba waaye bu dee dafa biddanti sax ba nga xamee ne bu nekkee fi di fay naafile gi kon bu boobaa kat jullit mbooloo suba si dina ko raw kon boobaa da koy bàyyi dem dabi jullit mbooloo suba ga waaye bu dee nag ki nga xam ne dafa war a naafile moom di niig niigal ba neex ko tàyyee julli ba jot kooku moom du ko may mu naafile foofu kooku moom du naafile naafile dañ koy sib ci moom kon ki ñu may mu naafile mooy ki nga xam ne nii dafa am ngànt mu nelaw ci guddi gi fekk naaf naafile ci guddi wala mu daan weddi ci guddi ga mu nelaw ba fajar jot mu gaaw fay ko kon may nañ ko mu gaaw fay ko waaye bu dul loolu tamit bu ñu jullee suba ba pare kenn du fa naafile lu dul jant bi dafa fenk ba demee ba nga xam ni diggante bi nga suba ak foo bëggee xam ne naafile man mees na ko faa def mooy bu ñu jullee suba ba nga xam ne dem na ba asamaan si jant bi maanaam fenk ba nga xam ne gis nga lu tolloog boo siggee xool jant bi nga gis lu tolloog ñetti si ñetti meetar kon boobaa da nga xam ne lañ si boon jeex na wala nga misaal ko rek ci jamono jii ñu nekk ginnaaw boo jullee fajar ba pare nga natt sa heure lu mat ñaari waxtu wala waxtu ak genn wàll nga xam ne heure boobu bañ si boon jot naa fi nga jeex na ak ginnaaw tàkkusaan tamit may nañ tamit buñ jullee tàkkusaan ba pare rek ñu mën caa jullee julleeg néew ndax julleeg néew tamit dañ koy jàppee comme julleeg euh, sunna kon ginnaaw bu tàkkusaan jotee nga xam ne ñoo julli tàkkusaan ba pare rek jullee ko boobaa dina baax kon ginnaaw tàkkusaan googu tamit même bu doon sujjootu alxuraan sax ci ngir imam malik sib nañ nga sujjoot ko fa mu ne wan naflu naafile in jalasa neem toog na imaamu jumaatin imaamu jumaa min bari ci kaw min bar bi faxat dong kurhun si béef na ko duri xameef na ko omana xonxu tere nañ baxada jumaxatin ginnaaw ajjuma isa lam yaxruji neem génnut al imam imam masjidan jàkka ja xusaa jàppal mu ne tere nañ tamit kuy naafile ginnaaw boo xamee ne imam bi ñëw na toog ci kaw minbar bi nee na ko sib nañ ku fa naafile waaye bu demee ba tàmbali xutba nag foofu tamit kenn du fa naafile bu tàmbalee xutba xutba arab boobu kenn du fa naafile kon sax nit ki sax ci ngéemu imam Malik bu imaam bi dugg si mu xam ne imaam bi dugg si na mu leer na ko ne bu diggante bi muy naafile imaam na toog ci minbar bi sax sib nañ mu naafile waaye ba xasee toog ci minbar bi ba nag foofu naafile wala toog kon bu imaam di xutba dañuy teewlu xutba bi ba mu jeex doo wax doo def dara lu dangay teewlu xutba ba mu jeex diggante boobu kon kenn dee nag nga gis ku fay naafile mu leer na ne kii kat di naafile ku ràññee la ci diini. waaw ah, nga xam ne kii kat ku am ak ràññee ci diine la kon danga xam ne jërul nga koy wax dara ndax kookoye mën naa nekk ci yeneen yoon ndax ngir yi dafa bari sangam ràññee ne diineem rek kooku moom jërte bàyyi xel mu ne tere nañ ne ba tamit julli juma buñ jullee juma ba pare ngay naafi loolu tere nañ ko sib nañ ko kon buñ jullee juma ba pare kenn du fa naafi lu dul boo bëggee naafile imam dafa dem ba génn jàkka ji ba dem imaam bi ju imaam bi nga xam ne moo jiite jumaa ji bu nee baa nga xam te ni julli ne ba pare ba def li muy def ba génn jàkka ji ba dem boobaa nag sama naafa nag fekk mi ngi nekk ci biir jàkka lu dul moo xam koo dafa yàgg ci jàkka ji lool mu leer naa ne imaam bi kat bu doon day génn jàkka ji def na li muy def ba génn boobaa naafile mën waaye nag sit nañ ngay naafile ci ginnaaw jullit aljuma kon bu ñu jullee aljuma pare rek naafile amul ci diggante boobu. kon loolu mooy waxtu julli yi nga xam ne moo di ñu julli suba ak fajar seeni moxtaar ak daruur yi ak jullik aljuma lu wàllu naafile yaag yu mel noonu kon foofu moo fala buntu waxtu julli yi yam kon yàlla nañ suñu boom defal dégg ak topp defal ñu suñu jaamu yàlla mu nekk jaamu yàlla yu sell tam nangu ko defal ñu ci li ci ñun te dëppalikaw li ñu bëgg kon xanaa dañuy wàcce kàddu yi fii di ndox digg daje si beneen jataay insha allah rabbi muy jataayal yóbbulum ndaw ñi di sant yi mbokk yi teelu jataay bi yëpp ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew den wax ne yàlla nañ ci moom defal jàmm ak yërmandeem ak ak yëggalam in uridu illa al islaha mastataxt وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته